noo ngi santaat yàlla bu baax di julliwaat ci ku tedd ki yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan sunu boroom sunuy kàddu yàlla na ko yàlla jubal te bu ko jubalee yàlla na ànd ak njariñ te bu ànd ak njariñ yàlla nañ ko jariñoo bi jaay yonent bi noo ngi santaat yàlla bu baax moom mi nga xam ne moom ci coobareem la bokkee ci jataay bi donte ne yàgg na nu ko topp tam di ci jariñu bu baax a baax ay at ay sunu borom di doog a dogal ñu jonjonteeg génn ñu ci sant yàlla bu baax di ñaanal xalifa général des mourides sëriñ Mountakha sa borom guddal aw fanam te yàggal ko fi lool te bàyyi sëriñ Tuubaa gi ak taalibe yi kanam di ko ñaanale noonu itam ki nga xam ne moo fi nekkal am Cerno borom guddal aw fanam te bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ba ca kanam barki yonent bi mu yeggale noonu la ñu nuyoo mbokk yi ñu fi fekk nga xam ne liggéey bi lu ci bari seen loxo la jaar sëñ Xaadim Diouf mii nga xam ne euh, mooy di suñu wóllëre di yàgg lool wax dëgg yàlla liggéey bi mu def ci euh, lu rëy rëy lu kawe njort loo xam ne bëgg ñoo dimbali rek moo tax mu mu def ko ànd koo mbokkam yu baax yi sëriñ Cheikhouna naa di ko ziar moom itam def naa xam naa lu gàtt semaine bi ñu ngi déggante muy borom passif loolu wax dëgg yàlla ko dégg àdd muy àddoo rek nga xam ne uh, lu baax rek ko ñor xam-xam rek ko ñor sëriñ bi rek ko ñor loolu tam sant nañ ci yàlla bu baax uh, di sant bu baax a baax suñu mbokk mi ngeen ñu booleel bi ñu ñëwee ndeysaan moom itam <laughs> jàmbaar lool dëgg yàlla di borom passif moom itam uh, wax ñu wax ju yoo xam ne wax dëgg yàlla ci jotaay bi li muy gàtt gàtt jàngate ñeneen ci lu bari waaye di sant bu baax di nuyu sëñ Karaam yi nga xam ne moo doon présenté jëmm ju ñàkk solo ji. xam ne daanaka mënoon na ca sax ñàkk wax dëgg yàlla di nuyu ñi ma àndal muy Cheikh Ibrahima Ndiaye ak sëñ Ababacar Seck euh, mu mel ne ba njëkkanteeg waxtu wi tomb bi ñuy bëgg a waxtaane mooy tomb xam-xam te mooy sëriñ Touba ak ni nga xam ne noonu la jàngale ndaw ñi ci wàllu xam-xam am éducation de base bi ñuy xam te moom ñun néew nañu ku nekk ci jataay bi te nekkoo di ci yëngu ci jamono bi yaa ngi jàngal ay ndaw yaa ngi leen tàggat te tàggat googu nga leen tàggat ak jàngal googu weesuwul lu may bëgg la def ñoom ab yar ak jikko ju baax euh, mu mel ne bu ñu màndaxee njàngam njàngum tey ak njàngalem sëriñ bi moo tax ñu ñu ñu ñu ñu xalaate ko noonu ndax gis na ne njàngum tey xaw naa ruube lool ñu ruuba ruubantewu na xaw naa jaxasoo xale yi gis nañu ni ñuy jànge gis nañ jikko yi ni mel yaren yi doy na waar ñu gis ne sëñ bi def na ci liggéey bu am solo boo xam ne buñ ko dugg dugaloon ci école euh, école yi jàngal ko ndaw ñi yaakaar naa ne euh, kon raw nañu réew yu bari ñun Sénégal raw nañu réew yu bari bari ndax ku xam nag te wax rek te yàlla xam ne wàllu jikko yi wàllu yarin wi ci xale yi des na léegi lu bare bare bari coppi ko am na ku xamoon tuuti rek ci at mi ma tudd léegi muy 97 bi mu wax léegi ci ci bi may dugg ndaam ñun at yooyu suñu ñimi am na loo xam ne xalaatuñ ko ñimiwuñ ko ci àdduna suñ junni xel xalaatu ko kon ñoo mooy génération bi fi nekk nii rek waaye tey bu ñu demee ba gis ne jamono soppeeku na xale yi jàngatuñ jàng bu baax tey jikko yi muy day gën di yàqu loolu loolu day baax ñu defaat li tubaab di wax replier tactique waaw defaat ngeen doo delluwaat ginnaaw li tubaab di wax maa ñu delluwaat ginnaaw xoolaat suñu bopp delluwaat ginnaaw googu nag moo tax ñu xayma tomb bi ñu sëñ Tuubaa jàngale woon xam-xam ci ndaw ak nan la ci war a suba ci ay jikko ak ay yar ñu jël tom boobu man de xew ak suñu njàngum tey ak suñu xale yi tey ak suñu yarub tey euh, wolof day faral di wax ne ku wal fariñ da nga tudd ab dëkk dana mel ne xam naa du jar ñuy jaar ci sëñ bi fi mu jàngeek yu mel noonu waaye du ñàkk ñu du mën caa tudd as tuut ndax bala ñu wax ne sëñ proviseur ba ñuy jël référence ci moom di ko joxe comme idole war nañoo tudd as lëf ci moom bañ xam moom nu mu jànge ba mën a jàngale moo tax ba ñu xoolee sëriñ bi euh, ci lu tënku rek ku teel a sóobu maanaam yoonu xam-xam la moom sëñ Tuubaa teel na koo sóobu lool xam naa lu ñu résumé rek la ndax xëy na li ciy bees du bari tey nekk na koo xam ne maanaam loolu daa def li nit di def sëñ Tuubaa daa def li nit di def mooy daa jóg jàng ci kii jóg dem jàng ca kee jóg dem jàng ca kee jóg jàng nga xam ne kenn ku ne mën ngaa wax ne sëñ Tuubaa kii ko jàngal kii ko jàngal kii ko jàngal li kii ko jàngal li waaw kooku dem maanaam ba xëy na yegg fu nit yeggut wala boog man lu nit mënut wala suñ borom boog baaxee ko ci baaxam moom yàlla ci xam-xam yooyu mu mën a jàngalee loo xam ne kenn fekk siw ko ci kon kooku dana baax ñu man ko man ko comme représentant euh, représentation bi sëriñ bi doon def sëñ Kara doon def day baax ñu def ko sëñ Tuubaa kon noonu la sëñ bi tàmbalee ku ne xam na ne loolu waxtaan nañ ko dégg ko ba tàyyi sëñ Mouhamadou Bousso mi ko jàngal euh, di nijaay ci moom ak sëñ Cheikh Samba Tukulóor ka jàngal na ko euh, lëf ci xeeti xam-xam yi noonu itam sëñ Xaalima Jaxate Kala allasi alallaahi tawakkala moom itam jàngal na ko xam-xam yu bari bokk na ci xam-xam bi gën a siiw ñu muy xam-xamu arut euh, nga xam ne sëñ bi def na ci lu ne ñëpp moo leen ci raw te gis ñu fa sëñ Tuubaa bind ci arut bu ko njëkkee présenté téere yooyu day wax ne maanaam daa gis comme gaa yu baax yi bind nañ ci moom njëkkantewul jàngul ngir jàngum njëkkante lu waaye def mu def ko dee jàngul ngir loolu day jàng ngir jariñu waaye jariñ àdduna jariñ doomu adama yi suñ mbindeef borom yi loolu loolu lenn la ci kon sëñ bi noonu la noonu la noonu la noonu la tàmbalim njàngam xaalima jaxate kale moomu sax dem na ak moom ba yegg ci benn bés ndax da daan bu da bu bindee bu ñëwee jox ko sëñ jox ko sëñ bi daal di koy xoolal xaalima jaxate xoolal ko jubbantil ko way yi ba benn bés mu wax ko ne koo yow de sama borom xamal na ma ci lu leer ne maanaam say way nekkatul loo xam ne dañ koy xool de génn yàq baax nag baaxut waaye fi ñu toll ci yow mooy lépp loo indiite dañ ko war di jël ko jariñoo di ko barkeloo ca la bindi xasidaam gu siiw googee mu bokk ca matlaxul xasida ga min nii li ahmada bamba taariku naasi min al illahi fa am sa sayid naasi maanaam bay dii de maa ngi koy sadd di ko jëme ci ahmadou mbàkke mi nga xam ne moo bàyyi te fàtte lépp lu dul boromam jëm ci boromam tabaaraka wa taala ba yàlla may ko ci lim ko may ci ay may ci wàllu xam loolu di lenn ndax sëñ bi bind na ci mbindam wax ne moom suñ borom dem na ba toll foo xam ne ci mbindam ci maanaam jàngale dootul waay lu yàqu dootul waay luy am gàkk-gàkk dootul way lu ñuy xool ndax naan ay fut am na ceeg yooyu suñ bi da ko bindal boppam yàqi xilaami al xatta wa sahwa baaxi kafaani al ida wa lahwa suñ bind na ko ba ba saxal ko ci lu bari dañ gisit ne am na bis ci minxul al minxul miski yi boo ci delloo sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ma ngi cay leeral di wax ne bis boo xam ne daa toog di jàngeen xasida ci xasida yi na toog moom yàgg muy jàng ca kaw mu yàgg nekk sëñ baa kees gi ci njaareem di ko dégg mu jekk mu yàgg mu daal di mel ne ko gàgg daal taxaw nee na sëñ bi daal di jekk ba ci bunu daane ko Ahmadou Diop ndax foofu mbaadu foofu daa mat a defar daa daam la fa a defar nee na fi mu di wax waxanteeg sëñ bi ne Cheikh Ibrahima daw song néeg bi daane ko Mbàkke moom mii moo mat a defar Mbàkke moom mii xool ndax ak yàq am na ci moom mii moom mën a defar mbàkke kon nga xam ne sëñ bi la ma wax na yàqi xilaamil xataa jooje mooy suñu borom da koo suturaal ci bi mu demee ba toll nag ndax xëyul xëy rek yàlla may ko loolu waaye daa dem di jàng di nap nabi di góor góorlu li nit war a def ba sama borom jox ko dayob maanaam xam-xam nag ndax ñun ñëpp ku ne sikkiwut ne e, xam-xam ku ci góor góorgóorlu yegg ci foo xam ne sa moroom bi góorgóorlu du fa yegg loolu sikkiwut Euh, moo tax mu daal di sóobu nag di waay yonent bi alayhi salaam ba xam ngeen ne xam-xam yooyu ci la waaye yonent bi alayhi salaam ba am garaat boo xam ne wax nañ ne ulama yu bari wala borom xam-xam yu bari ci nit yàlla yi doon nañ ko sàkk mooy xaddimu rasulillahi parce que xaddim dafa gën a for xaadim xaadim moom mooy koy liggéey xëy na ci daayoo bi bu ñu koy xayma ci xalaat wala ci wàllu luga xaadim koo xam ne day taxaw taxawaayu rek bu liggéey tey nga fay ko bu subaa mu xëy dellu waaye xaddim nag day dellu koo xam ne day sax ci digganteem ak boroomam saxin boo xam ne maanaam sifa lay doon du tàggoog moom loolu ñi ko soxla woon ci gaa yu baax bari nañ waaye sëñ bi jëkkul ñokket rek yem am ko daa jekki di liggéeyal borom ba yàlla jox ko kon loolu ay junj lay ñuñ bëgg junj euh, dinaay wax sax foo xam ne day wax ne yàllaa ma jox làmmiñu arab ba ma mën cee way yàllaa ma jox làmmiñu arab ba ma yegg ci man cee way waaye ci bani hashim moomu nga xam ne mooy yonente bi alayhi salaam waaw lam ne loon laqanani llahu lisaan al fa xidmatin lil hashimi al waaw noonu la koy leer nga xam ne moom kon aw làmmiñam bañ koy sàkk moom sàkkuñu ko woon ngir lenn waaye euh, tagg rasulullahi ci langu arab ginnaaw bi mu jàngee ba xam-xam-xam yëpp moo moo ko may loolu nañ ne mi ngi ko def ci juróom-ñaari at la beq xam yu bare bare bare bare ci gaa yu baax yi mu doon jàng ci seen kanam waaye juróom it jàngal na ko aslëf ci xam-xam moo ko jàggale alxuraan ak yu mel noonu euh, waaye bi mu gis nañ ne njàng def na ci lu ne daj na ci lu ndax moom sëñ bi ci boppam bi mu Euh, Mamour Ansali bi mu fi jógee rek gis nañu ci sax ci jataayam sax laay wax njëkk jataayam bu njëkk euh, dog woon na pour dem gànnaar jàngi fa moom sëñ bi waaye boobu bu ngeen seetloo jamono Mbàkke Kajoor la bi Mamour Ansali làqoo ba am at wala ñaari at loolu sëñ Moustapha Lo rahmatullahi alayhi mas nañu ko nettali nee na dem googu ñeenti weer la fa am ñeenti weer muy dem ku njëkk muy gànnaar bu njëkk yi boobu ñeenti weer rek la fa am bokkut ak gànnaar gi nga xam ne moom lañ meen 1902 ba 1907 wala 1903 ba 1907 loolu xam-xam rek ko yëkkati woon ak it bëgg di ko xeeñtu waxtu ne Cheikh Mouhamadou Jaddaali ibnul Karim al Fadil ad Daymaani bokkoon ci bani Daymaan doon naaru gànnaar euh, yoroon ak njabootam fii ci Njaañ Njaga di fi jàngale sëñ bi daana dem ci moom dafa jàng xam-xam boobu ñu wax xam-xamul balaaxa te mu xaajoo ci ñetti xaaj al badia wal maani wal noonu itam ni ma ko waxee muy demu gànnaaram googu itam demoon na fa muy loolu ma waxoon léegi loolu sàkku xam-xam boobu loolu liñ ciy jiggee mooy kon ndaw ñi dañoo war a euh, suubu ak njàmbaar bàyyi xel ne euh, xam-xam yaafus du ko maye waaye toog di xool du ko maye ak it yu bare bari ñu xam du ko maye waaye pasté fa koy maye ak bëgg ak it sóobu nekk nekk nekk ca sëñ bi ku teel a bind ay téere la ngir wane na moom ku jàmbaar la ci xam-xam ku bëgg xam-xam la waaye gis nga wa man yaqbalu nusxa minhu min ahli zaman képp koo xam ne pare na pour diglu say conseil yow Serigne Touba jox naa la ndigal jàppal ne kooku yaay ab jàngalekat yaay professeur am bu ko war a jàngal ba ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu seedeel na sëñ Touba ne ko yaay borom xam-xam boo xam ne noonu sax dafa wax ne borom xam-xam bu ne sëñ Touba da réew moom mais man ko faa gis noonu la ko leerale réew ma ko faa gis Cheikh Ibrahima Niass noonu ko waxee wa misluhu muhammadul bambiyu aalimu til bilaadi sil waliyu moom noonu la ko leerale muy ay ay ay ay ay signes yoo xam ne wane na sëñ Tuubaa moom aalimu kullu fanni la woon waaw ndax dem ba li nit te jamono bii li gaa yëpp di bàkkoo mooy jàng ba man a way jàng ba man a way ci arab wala ci langue poésie te sëñ bi bi mu demee ba jekku langue woowu man ci ñëpp dana du ci way ndax gis na ne gaa yu baax yi way nañ kon moom njëkkantewul loolu na dem seeti leen daal di dugg ci jikko yi ak yarin te mooy tomb yi ñu war a waxtaan incha allah dem na ba xamal ñu itam ne moom mooy xam borom xam-xam bi yàlla bi nga xam ne moom bu ñu sañee wax ne moom mooy ki existé ci kaw suuf koo xam ne euh, yàlla dogal na borom xam-xam yëpp ci ay loxoom la ñuy jaar wala bokk ci nañ jaar ndax moom nee na amul fenn fu borom xam-xam di nekk ba nga naw ko te du ne day tegtaloo ci man man Sëñ Tuubaa na la ko dalla ala ulama wal awliya la wax borom xam-xam yëpp ci man la ñuy tegtaloo kon loolu benn la ci ñetteelu tom bi mooy xeetu xam-xam bokk na ca mooy ñu sàkku xam-xam ndaw ñi nañ dem sàkku ci xam-xam te buñ sàkku xam-xam ba pare ñu ànd ak di ko jëfe loolu sëñ Tuubaa jàngale na ko ci façon yu ne ci anam yu ne waaye jàng xam-xam ba pare ma ne sondeel sëñ Tuubaa waxul woon xam-xam yooyu waaye jàng xam wala jàng xam-xam boo xam ne da ngay def doon maanaam waa ji suul ak sulli di xër fu ak yu mel noonu yooyu sëñ bi moo tax bu ngeen fàttalikoo bi muy dem ci géej gi euh, radiyallahu anhu euh, bi mu demee ba ba ba buñ ko dugalee takkusaanam koo ca ca ca ca néegam moomee ca ñaari guddi ndakaaroom yooyee dafa dafa dafa am génn góor gu ñuy wax Ibra Binte Gueye Ibra Binte Gueye ab sàndarma la ab jaraaf la woon ci fukki pénc ndakaar yi ak ñaar la bokkoon gis nañu def sëriñ bi metti ko lool naqari ko mu ñëw ne tubaab bi damaa bëgg bind autorisation daal ñaan ne damaa bëgg ngeen jox ma sëriñ bi man nooyal aw tëddinam di neexal aw lakkinam ba ngeen soxla ko ma jox leen ko tubaab bi waxee tubaab bi euh, gouverneur ko dégg bi ñu ko waxee bi ñu ko waxee dafa nekk moom est-ce que dafa nit la kii liñ daj ci moom ba dugg suñu loxo mu koy demandé mu ne waa laaj leen ko lu mu ci bëgg mu ne xanaa neen da ko yërëm ñu laaj ko wax ne ko léegi na signé ñu jox ko ko signature bi moo dañ ko waxoon Ibrahima ne ko loolu sëñ Moustapha Lo moom ko nettali rahmatullahi alayhi mu ne bi mu ko waxee daf ko wax ne ko signeel ne bis boo xam ne sëñ bi daaw na waxuma moom waaye sa njaboot yëpp la ñuy dugal ci kaso bi li ñu waroon def sëñ bi yàlla ñu ko def yàq sa njaboot mu ne d'accord naa daal jël Ibrahima Bente yóbbu këram ba Ibrahima Bente Gueye bis bi sëñ Touba di génne Ndakaar di ci bato boobu bi kër Ibrahima Bente Gueye la bàyyi ko euh, loolu xëy na duñ koy waxtaan lu bari waaye noonu la taarix bi demee sëñ Moustapha Lo mi ma ko nettali nee na ma satala googee nga xam ne sëñ Tuubaa defoon na ko seede digganteem ak moom ngir ngir yi ma leen ci bëgg a nettali muy xarfa foofa yooyee mu doon def sëñ bi jàngaliwul loolu bëggul loolu ci tàkkusaan ga daa dem dem ca mbokki libum ya comme dañoo bari ay mbir mu dem fa di wut ay xarfa foofa bi mu ñëwee gis mu jël ay gàllaaj yooyu di gas di suul ci bunt bi sëñ bi daal di sëñ bi di ko xool rek ba mu pare mu di koy woo ñëw mu ne ko Ibra Binta mu ne ko mu ne ko loo jublu ci lii muy deng la ak bëgg a jaxase xel tubaab yi ba seen xel génn ci yow ba duñ la yóbbu ci réew ci géej gi te la ko xamal ne ko man kat in kuntu za xusnin aw kuntu la ay daawtu zal ayni xabla raai wa chini loolu maa ngi la koy leeralal wax nag kon bari keroog ne ko nag ku dul suñ borom wóolu ma ko ci àdduna li ngay wax nii sax amul solo dinaa la def loo xam ne mooy doon sama seede ak yow Ibrahima binte mu ne ko labbayka mu ne ko xanaa boo ma gungee ma dem nga ma xanaa dina sam xel war dal mu ne ko waaw suñu sàlloo nee na mu yëkk sëñ bi yëkkati satala ak ak sijaada ma loolu loolu kon day wan ne kon sëñ tubaa xam mu loolu xam-xam bi mu bëgg mooy xam-xam bu set te jublu ci suñu borom tabaaraka wa taala mën a dimbali ndaw li ci àdduna waaye man koo xetti àllaaxira gëm jëm moo tax mu wax ne moom fa saari'u lil ilmi li wàcci zil jalaali qaasidina yéen ñëpp woo leen yéen àdduna bépp woo naa leen ngeen jublu xam-xam ngir jëmmi suñu borom na yàlla rek tax ngeen di ko jur waaye bu ngestal tax bu dara tax fa saariu turran ila taallumi wa jaahidu nufuusa bi tafahumi wa jaahidu nufuusa bi tafahumi bi maana mooy ñu jàng ko ba pare waaye nag boole nag jihaadu nafsi mooy ñu jëfe ñu jëfe xam-xam boobu te mooy li imaamu saadix radiallahu anhu wax ne laysa al ilmu bi kasrati taallumi innama huwa nuurun yaqa'u fi qalbi man yuridu llahu an yahdiyahu fa ida aradta ilma fatlub fatlub awalan fi nafsika xaqiqat al ubudiya gis nga imaam Saadix noonu la ko leerale mu ne maanaam loolu mooy li nga xam ne moom la nit ñi war a xam ne mooy xam-xam xam-xam daal lu lenn lu may leer la ko yàlla tàbbal ci nit waaye nit ki day def ay effort ngir mën a yegg ci ci ci ci tawféex yooyu tey it ki ko yàlla def lool ñu ko tuddee borom xam-xam mooy ku yàlla na a dimbali mu tegu ci siraata mustaqim nar ko tawfiixal nar ko teg nar ko jubal kon xam-xam ndekete kon dafa am ay réalité ju nekk mooy xam sàkku gi rek doyut waaye gis nga alxuraan sax bi ñëpp bëggee daw sàkk ji xam-xam di di takk di laxas di dem dana déedéet yéen ñenn ñi nañ toog ñenn ñi xaar ñenn ñi ñenn ñi dem def nañ dem dem ay mécanicien ñenn ñi dem ay menuisier métallique ñenn ay menuisier bois ñenn ñi doon ay baykat ñenn ñi doon ay sàmm xaar ñenn ñi bañ ñëw buñ ñëwee jàngal leen waaye ñëpp ñoo takk laxasaay mais bu rek daal dem mënut a nekk kon euh, dafa am ñu yàlla war a tànn d'accord ñu doon ay borom xam-xam waaye nag ñoom ñoo war a defar ñi nga xam ne doonaguñ dara ngir buñ paree ñoom itam ñu mën a bokk ci kuréelu borom xam-xam yooyu wala boog ñu mën a mën a lañ am ko su néew ci xam-xam mu bari ba am ñoo ñu mën koo jëfandikoo. Euh, ba tey imaam Saadix mi ngi wax ne. xam na ne moom suñ borom xamal na ko xam-xam nee na ko ñetti xam-xam yi moo am moom imaam Saadiq moom ñeenti xam-xam xam-xam moo am an taarif rabbaka ak an taarif ma sanaa bika ak an taarifa ma bi minka ak an taarifa ma yuxrijuka min diinik ñeenti xam-xam yi moo xam-xam boo xam da nga koy xam ngir jublu ci xam sa borom beneen xam-xam bi mooy nga xam ko mooy xam an taarifa ma sanaa lan moo tax suñ borom sàkk la nit ki da ko war a xam ak xam-xam boo xam taarif ma araada minka suñ borom lan la nam ci yow lu tax mu sàkk la ba lim nam ci yow ba tax mu wàccale ci kaw suuf ndax inni jaa'ilu fil ardi xalifa kooku bàyyi xel war ngaa xam ne kon waroo doon waroo doon koy yàccaaral koy bàyyeeko xam-xam dalaa war ak xam-xam bu ànd ak jëfite sellal ndax koy représenté yàlla du warta doon warta doon coono beneen mooy nga fexe xam xam-xam boo xam ne daf lay fexe ba boo xamee ne nooy def ba doo génn ci lislaam ndax léeg-léeg xam-xam xam ne dañ ko war di wax nañ ne suñu borom tabaaraka wa taala bi muy wax ak suñu maam aadam da ko ne inni ajmau laka al ilma kullahu fi arbaa kalimaat maanaam mboolem xam-xam yi ma sàkk man yàlla dajaleel naa la ko ci ñeenti baat waaxidatun lii wa waaxidatun lak wa waaxidatun bayni wa baynak wa waaxidatun baynak fi ma baynaka wa bayna naas xam-xam bii tam mooy xam-xam boo xam ne sama diggante man kese man yàlla maa ko jagoo sama diggante yow ak xam-xam boo xam ne yow rek yaa ko jagoo yow aadama yow bani aadama ak xam boo xam ne sa diggante ak nit ñi la euh, sama sama diggante la ak yow doomu aadama ak xam boo xam ne sa diggante la ak nit ñi yow doomu aadama nit ki war naa xam kon xam-xam bi dox digganteem ak nit ñi bi dox digganteem ak boroomam ak bi moom ak bi yàlla moom te loolu am njàng koy may waaye toog bàyyee ko du ko may boobu tam sëñ Tuubaa leer na ci ay lu bare bare bare ci am njàngaleem Seydina Isa gis nañu ci injil sax bi muy wax ne man taallama wa amila wa alima wa amila fa zaaka yudaa aziman fi malakuti sama sama yi na Isa na la ko jàngalee wax na ne nit su sàkkoo xam-xam ba pare waaye xam ko ba pare soo ko nangoo jëfee kooku dañ koy boole ca ña nga xam ne mooy malakutu sama yi maanaam ca gaa yu baax yi nga xam ne dañoo bokk ca pays suñ boroom ya kon sëñ Tuubaa xëy mën nañoo wax ne njàngam Seydina Isa Seydina Isa mi moom la topp ba yàlla boole ko ci pays yi wala boog mu defal ko ci xam-xam kon lim ñu bëgg a leeral mooy li sëñ Tuubaa jàngale woon ci xam-xam ne mooy fal ilmu laa ba laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maa maa diraaya kon xam du bari xaala xila comme ni ma ko mam mam bay lu def ak lu ñuy jàng la moom set booleeg ànd ak leer gu ànd ak jëfe te yàlla rek tax lu yàlla dëbb ci xolum nit ki lay doon xam xamul diraay nag dara mënu ko may lu may sellal jàmm bi faaw mu yegg ci sellal ak sàmm suñ borom soog ko jox inna allasi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alamin wala af na la noonu comme suñ bi euh, yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam bokk ci way ñi nga xam ne dañuy am ngaañu suñ borom ëllëg taxoon na mënoon ñaan suñ borom ne ko yow yàlla maa ngi lay muslu maa ngi muslu ci yow ya suñ borom sa kattan nga fexe ba bañ maa boole ci way sànku yi auzu billahi an akuna min al jahilin yàlla maa ngi ñaan loolu nga defal ma ko ba boo ma ci bokk xam-xam ñu ko mën a dégg mooy du lenn lu may nattukaay la ci ay ngëneel waaye adresse ub adresse ub way way way baax yi lañ way gaa yu baax yi mooy seen adresse xam-xam xam-xam bu sell comme ni ko alxuraan waxe ko jaaree ci yoon woowu jàppal ni sa adresse mooy xam-xam ak mooy ak mbaax waaye sam nattukaay mooy ak ngëneel ay ngëneel loolu lañu ñuy wax fal ilmu mi'yaarul fadli wa unwaanul xayri tax yéen bi sallallahu wa sallam wax ne xayrukum man ta'allama al-Qur'aan wa 'allamahu kon mooy ki gën ci nit ñi mooy ki jàng ba pare di jëfe jëfe xam-xam ba waaye man ba ko ba koo ba mën koo jox nit ñi ñu jëfe ko ñeenteelu tomb mooy lan moo tax Sëriñ tubaa diggal ndaw ñi nañu sàkku xam-xam Sëriñ Tuubaa digle ne ñu sàkku xam-xam waaye dafa digal ndaw mu sàkku xam-xam sëñ bi nee na mooy li ma waxoon léegi xam-xamu fu xar fuufa yeeg yooyu sëñ bi nee na waxuma xam-xam yooyu waaye xam-xam bi ma wax mooy ñeent rek ci laa ko tënk mooy xam-xam boo xam ne dalay tax nga amum njub xam-xam boo xam ne dalay génn ci réer xam-xam boo xam ne day tax nga xam sa borom tabaraka wa taala mën a jariñ bindee fi encore une fois waaye mën a dundal xam-xam itam di ko jëfe sëñ Tuubaa ne ñeenti xam-xam yooyu laa la la la la la laa diggee ak yéen xam ñeenti xam-xam yooyu laa jàngale fal taqsudu arbaatan inda ibtida taallumin li kay tafuusu bil huda awaluha alxuruju min aldalal wa thani nafu xalqi zil jalal waaye saalisuha al ixyaau lil ulumi wa rabiu wa rabiu amalu bil bil maalum kon ñeenti xam-xam yooyu la Sëñ Tuubaa jàngale bokk leneen loo ngeen fi gisaat nag loolu moom mbirum nit la ak coobareem waaye sëñ moom génn na ca set na ca loola waaye sëñ bi dañ xam-xam yooyu ma waxit nag laa maanaa ngeen jàng ko ci yeneen yeneen ak yeneen langue yu mu leen neex man sëñ Touba man maa choisir langue yooyu waaye langue yëpp mën ngeen ko ci jàng anglais espagnol français yëpp mën ngeen ko ci jàng waaye nag man maa sàkku xam-xam bii ñuy wax xam-xamu euh, diine ma jànge ko ci langue yonent bi ba sax na fu mu bind ci waxam ne dem naa ba léegi sax langue wudul langue yonent bi araamal naa sama làmmiñ di ko wax ci lay waxee naan manaatu si wal lisaani fi lugaati bil arabi al musaxi am na fu mu wax ne lisaani yaxtama an lugaati laa jombati naa wax jenn wax joo xam ne dañ koy dàkkante lu maanaam moom ndax làng wu dul làngu yent bi du làngu arab luxatul buxaar la ko jàppe waaw luxatul buxaar la ko jàppe kon euh, noonu la ko euh, doon jàngale moom sëriñ bi mu waxit ne ginnaaw boo sàkk ko xam-xam ba pare na ko yaatal ci keneen ku dul yow ngir njub gi ma ci diggee wala boog njub gi ci yàlla diggee kooka mën koo am ni nga ko amee waaye bul am xam-xam rek nag kott ko ne mbaam wala boog def ko ne ab xaalis ci sa gafaka yaakaar ne yow rek yaa ko war a jariñoo mu ne déedéet loolu yomb na lool waaye la la fekk gën a garaaw kon nag boo ko xamee ba pare na nga ko wër tasaare ko ndax loolu mooy la ca suñ borom digle moom nga dégg mu naan képp koo xam ne am nga xam-xam ba pare waaye jël xam-xam ba boobee def ko ne portefeuille daal koy tëj ba mu nekk ba mu ne képp nga def ko ci sa jiba ne muut ak moom sëñ bi nee na yaa ngi mel ne mbaam mu sëf ay téere amoo njariñ amuloo kenn njariñ amoo njariñ waaye amuloo kenn nit njariñ wa man xawaa ilman wa laysa yamalu euh, euh, dégg nga bihi fa innahu ximaaru yaxmilu amit feneen foo xam ne fa kullu man bi ilmihi xat baxila fa innahu qabla al mamaati yubtala loolu sax moo ci na metti moom ndax am xam-xam ba pare euh, benn waxuma sax yow jariñ ngay jariñ sa waaye da ngaa lànk yow jëriñoo kenn tuskaree suñu borom moom moo lay xaar ca loola mooy am xam-xam ba pare te tasaare woo ko nay ca xam-xam ba maanaam bañ lànk ku ne ne mas arab nangam nga bëgg koo wax ba réeral ko wala nga ne ko man de xaw ma ci loolu dara tam nga mën koo xettali loola mooy am nga daanaka mën ngaa am sax bàkkaar ci lislaam ndax ab jullit boo ko war a xettali euh, comme niñ ko xam ne néew bu faatu woon fii tey ñun ñii ñëpp ñu selenglu ci seloluñ ko sànguñu ko suuluñu ko ñun ñëpp dañu am bàkkaar jumaa ji bu doon fi mu ne nii fi saasa ñu war a julli ji ñëpp ñu selenglu mépp suñu daal génn dëkk bi dem suñu yoon ñu ñu génn ñëpp ñëpp am bàkkaar faaw lu mu gàtt gàtt ñaar war nañ koo taxee wala ñett boo mu xaw a woyof ca ñetti waaye lu leen wàcc nag day xaw a woyof rek xam-xam bi it soo ko amee sëriñ bi nee na soo ko tasaarewul na nga mën a waat ne la ca gën a sedd mooy xëy na li ngay gis ci àdduna waaye toroxtaan nga jëlee ci xar te mooy li alquran wa masalu lasina xumilu xumilu tawraata suma lam yaxmiluha ka masalil ximaari yaxmilu asfara xam-xam moom yor ko ak yor ay bibliothèque te doo ko liir doo jox gaa yi ñu liir bu gaa yi sax dawee song bibliothèque bi nga gaaw tëj ko sama gaa yi bu ñu ñëw di sàcc sama téere yi nangam nangam fekk maanaam siis ci téere yi rek da ciy siis rek bañ gaa yi bañ gaa yi kii xam-xam bet amoo benn jotu tam joog ca jàkk ja bu gaa yi toogee ba pare laaj la masala waaye yaa toog sa ruq rek nekk sa bopp sëñ bi ah, jox nañu alerte alerte nañu ci sëñ Tuubaa jox nañu alerte alerte nañu alertation bu baax xam ne war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax baax jàng xam-xam ji ko jëfee ni ko suñ boroom digle waaye di ko tasaare ni ko suñ borom bëggee tabaaraka wa taala xam soloy xam-xam muy juróomi tomb bi mooy soloy xam-xam yi nga xam ne sëñ Tuubaa jàngal na ko ndaw ñi bañ na ko ba daa téere bind ab téere ñetti téere la sëñ Tuubaa bind wut benn téere dugal ko seen biir sëñ bi jàngale noonu sëñ Tuubaa rek lañ gis mu jàngale di jàngale ba mënatula bind dem jamono boo xam ne bind mënatula amatul jotu bind muy def ay tomb di jàngale man ne koy gisaane euh, loolu ñuy wax maanaam almu euh, ram la la xaw ma nga xam ne ay lasaraarkat yi xam nañ loolu <laughs> waaw sëñ bi daanaka léeg-léeg xeet yu bind yooyu bu ñu la ko doon bindal fii da ngay jàmm sëñ bi danoon ndax ndax sëñ bi daawul las defar lasaraan ngay wax maanaam daawul daawul daawul lasaraan yooyu fekk yooyu yëpp dañ doon jàngale xam-xam yooyu benn bu ci génn chariata ak sunna amul bu ci génn alquran ak sunna ci xam-xam yooyu tombam yooyu amul am na ci tomb ma doon benn mbokk doon jàngal Tuubaa mu ne ma mooy ñetti tomb yi xaw ma muy benn bi mooy sa jëmm a ngi nii ñaar yi mooy bàmmeel bi mooy bi mooy adduna bi mooy alaxira ñaari ñaari yeneen ñaari tomb yi tomb bi mooy adduna bi mooy alaxira kon nit ki moom moom ana fu mu ne ana fu ki ne koo xam ne yow yaa ngi nii boo maanaam doo delloo ginnaaw benn nga jëm ci adduna mbaa boo delloo ginnaaw nga dugg nga dem barsax te loo loo yàgg-yàgg ci adduna gannaaw yàgg-yàgg da nga génn fii nga dugg ci bii xoolal tomb yooyu xoolal loolu ni mu man ni mu man ndaxewoo maanaam ni mu jubee te sëñ bi defu ci man ñett tomb yooyu laa xam sax ci lu ma mën a wax waaye fii boo duggoon fii gaa yaa ngi fi man laa wax ci tomb yi yoo xam ne sëñ bi da kon sëñ bi mooy premier modèle di monde ci wàllu maanaam éducation euh, générale la manière générale la mën a wax boo xam ne sëñ Tuubaa na ko ci tudd ne maanaam mooy seule personne boo xam ne maanaam koo xam ne tey àdduna gisaguñ ko mel ne moom ci wàllu xam-xam ci njàngale ak man koo joxe ak xam ni mu ko joxe te ku ca jaar mën a jub àdduna àllaaxira sëñ Tuubaa lañ gis ci fànn woo mu def ci loo xam ne euh, faaw na faaw na kon yaa maxshara shubaani in xiftum xajal di faqaddimu taalluman ala amal dafa tere alerte yéen ndaw ñi su ngeen bañee gàcceeg àdduna ndax gàcceeg àdduna moom weesuwut mooy la benn borom xam-xam wax ne al jaahilu addu nafsihi dafa amoon sama mel ne maam daan wax ne jaahil buur la ma ne ko waaw maam sama maam Cheikh Lo daan wax ne jaahil ma ne jaahil buur la mu ne jaahil tooñ ba pare mere la <laughs> waaw dalay tooñ ba pare mere la lu metti la tooñ nit ki ba pare mere ko loolu jaahil doo koy def waaye ab xaalim du def loolu borom xam-xam def loolu ku xam dara du def loolu kon loolu mooy yal nañ ci yàlla musal moo tax bi te yàlla xam ne jaahil lu metti la moo tax mu ne kon faqaddimu ta'alluman ala amal liggéey baax na lool yaxantu waaye na ngeen jiital xam-xam ndax boo jiitalu xam-xam la nga yaxantu njéey mën na la jaa fekk ba boo ko amee doo ko jariñoo te njariñ loo fekkee njariñ loo fekkee kon njariñ loo fekkee nag xam-xam da nga moo la ci mën a moo la ci mën a gide àll bu ne tat lëndëm tëriis nga nar koo suubu te xamoo kañ lay dëpp te xamoo kañ la leer gi euh, fajar gay xar boo amutu fit amoo ngànnaay mën ngaa dëpp boo amutu fit amoo ngànnaay mën ngaa dëpp ngànnaay li ne sëñ Tuubaa dafa jàpp ne mooy xam-xam bi gën a sell ci xam-xam yi moo tax alxuraan bi muy wax sax buy màndaxe dara ak dara danaan bu leen ma laajal kenn bu leen ma wër kenn demal ngeen wëral ma borom xam-xam yi ngeen laajal borom xam-xam yi fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamun waaw in kuntum laa taalamun bu ngeen demee ba jànnaxe xamatul leen fa nga jëm dellu leen wala day faral di nga jëm da dëpp dellu fa nga jóge mooy ku ci dem ba jiixi jaax nekk si mbir wala xamatu fa dellu nga laaj borom xam-xam yi kon loolu mooy mooy mooy kon importance boobu la xam-xam am xëy na ngir njëkkanteeg waxtu yi ci loolu ndax bari na tomb yi bari na waaye sëñ bi nee na nañ sàkku xam-xam ndax xam-xam li tax mu am solo ndaw li su koy jàng su koy sàkku suy sàkku xam-xam mooy ndaw li suy sàkku xam-xam moo gën ci moom mu bañ a def leneen mañ ko sàkku te xam-xam boobu muy sàkku ne da koy teral àdduna waaye teral ko àllaaxira euh, gis ngeen ba tàyyi yoonu murit liñ fiy teral ci borom xam-xam daaru muxti gii li ñuy teral ci borom xam-xam mënuñu ko misaal Tuubaa gee la ñuy teral ci ay borom xam-xam mënuñu ko misaal boo demee benn dëkk nañu war maale borom xam-xam mënees ko misaal boo ko génni àdduna bi noonu kon xam-xam da lay ci àdduna waaye ni lay terale ci àdduna ni la yàlla lay teral àllaaxira moo ko gën a moo ko gën a piir noonu la Sëñ Tuubaa leer la fal ilmu xayru ma bihi daana al fata fa innahu moo ko ata waaw kon nit ki loolu moo war a doon objet bu njëkk lu mu mën a def ci àdduna daa war a denc ci njëkk waaye nag jàng xam-xam ngir ay pexe wala ngir daraja wala ngir bëgg tur wala mbër bëgg yi xew nga xam ne di conférence ñu di jorob xaalis ak léeg-léeg ñu lay yooyu Sëñ Tuubaa yooyu néewul ci yooyu xam-xam yooyu tax ko di wax mais xam-xam boo xam ne ndax léeg-léeg nga gis nit wax conférence ba jóg boo laajoon ko maanaam euh, ñi toog ca jotaay bi boo leen laajoon lu wax mënuñu la ca wax benn baat kon mooy dara dara wàccu fa wala boog la wàcc taxut boog am solo boog ci ci ñi ko doon diglu kon xam day am njariñ doon xam boo xam ne day amal solo doomu aadama yi daal di wax ne jëf baax na lool mu Sëñ Tuubaa jëf ju baax baax na lool ab yóbbal la ëllëg waaye jëf ju baax li muy baax baax baax baax ne Sëñ Tuubaa ne bu ant xam-xam ne ay wor rek la wala amalu saalihu xayru zaadin waaye wal ilmu duunahu xuruurum taadi taadi donc kon nit ki daa war a bàyyi ne xam-xam moo na moo fi ne xam-xam moo war a am njëkk moo taxoon imaamu abi abi xanifa radiallahu anhu ndeysaan danaan jàngale doonoon daan commerce waaye danaan jàngale ay xale ndeysaan jël waajur xale yi nga xam ne seeni baay amuñu doole mu leen di fay ndeysaan noonu laan def abi xam abi abi xanifa noonu laan def danaan jàngale xale yi jël say doom di leen jàngal dem fay seeni baay ba pare ku ne di jàngale di jàngale daara ji loolu moom yaakaar naa ñu koy def fii noonu gars yi nag defe ne ñi ko defee noonu ne waaye noonu moom bareegut moom waaw sëñ Tuubaa nag lañ gis nag bi mu ñëwee moom moom sax mu def lu fa wax loolu moom waaw ñi muy jàngal moo leen di dundal moo leen di yor moo leen kër moo leen takkal soxna moo leen di moo leen di moo leen di moo leen di ba ñu noppati leen gis kon loolu loolu sëñ Tuubaa lañ gisaat mu def ci loo xam ne gisaat ko ko ko ko ko ko ko soo ko masaan def nag ba jàng ba yegg foofu danaan la xad wasalta ila al ghina al akbar bi maarifati al xalaali wal xaraam noonu imaam imaam Abi Xanifa loolu laan wax soo masaan di def di di di jox sa sa sa papa rebataillement ak lépp ba nga jàng ba mokkal mun la mokkal nga mun la waaw mu ne bis naka tey nag génn nga ci ak réer génn nga ci xàmmee nag bis na ka tey lu araam ak lu dagan lu baax ak lu bon xàmme nga ko aywa doxal nga daal suubu saw yoon dem dem nga xam ne dugg nga àdduna dootoo gëlëm mukk loo bëgg dee def da ngay teg xam-xam ba mu leer nañ nga soog ko mën a jëfandikoo ndax fii bari na tey ji li ko firndeel rek mooy kaso yi rek boo ci demoon tey kaso yaa ngi fees daal fi ne boo demoon ci kaso yi bari na ñun jàpp ñoo xam ne buñ ko laajoon lu tax ñu jàpp ko moom mën lu ko wax sa après te dara mënu ko dara wër lu ko ma ñàkk xamam moo ko moo ko yóbbee benn xëtt na luwaay yi taxi yi ci du ñàkk fayda la ko la ko xëtt parce que xamul luwaay yi parce que bu jàngoon danga ko xam wala mu jàngalu wala mu laaj parce que alu ahla zikri ñu ngi fi xamoo dama nga laaj leen waaw kon yooyu yu am solo la beneen bit moom sëñ bi mi ngi dénk ndaw ñi buñ toll ci xam-xam nañu na leen xam-xam rek ñor bu leen dara leen ñoon bu lu xam-xam waaye léeg-léeg nga gis ndaw loo xam ne buy jàng bu nekkee seconde li muy njëkk a def li njëkk doon moom reevam mooy nan laa def ba am bag jàng euh, euh, ni ñu ko waxee euh, jóge ci semence bi mooy tekki dimbali sama ndey ak sama baay maanaam ñu baree bari fi ne si sunum njàng li tax da mokk fi ne bari na njàngkat yoo xam ne boo leen joxoon ci ba ci arab yi ah, fi ne njàng maa ngi bëgg sax mi ngi bëgg soobu ci suñu njàng mi njàngu arab mi am na ci xale yoo xam boo leen doon bind leer buñ doon leer jox la ndeysaan da ngay da ngay da ngay ree ba sa heure bii di metti am nañ bag lu bon bon waaye niveau zéro mustawa zéro beneen bi mooy koo xam ne day dem ba université ci école mu farne son yi da ngay gis koo xam ne daanaka lettre bu baax du ko bind wallahi la asim lettre bu baax du ko te du lettre yëpp la ñu am na lettre bu mën a jëm sëñ sëñ sëñ naa mais tey lettre bi ma koy jox ak bi may jox administration du benn lettre administration ak lettre sëñ Cheikhu naa du benn kooku du benn te ñu bëree bëri da ngay ba université la ci li koy waral mooy dañuy jiital ñaar te di dooni laa yajtamiaani loolu arab yi wax ñaari ñaari ndeyjoor ñaari dàlli ndeyjoor kenn mënu ko sol boo ko solee rek di nga yëg ne ñaari dàll yi nga sol bàyyi ngay benn bàyyi nga càmmoñ ba mooy wenn waruwaay mun te war ñaari mbaam noonu la ko war a daan libe te xale yi léegi bu ñuy jàng noonu la def mooy dañuy bëgg kuut kaa kuut ñu am bag kuut kaa kuut ñu am liggéey kuut kaa kuut ñu am xaalis kañ ngay am xam bu baax kañ ngay am xam-xam bu sell kañ ngay am xam-xam bu set boo mën a jariñoo ci àdduna tey ñi gën a ñi gën a ëpp na ma yàlla baal ci ay nduxum ak def ay erreur daanaka dañ naa dañ lay wax ne dañoo jàng ba yor seen diplôme dañoo jàng ba yor seen moo tax sëñ bi daan wax ne boo sàkkoo xam-xam suubul xam-xam la ci des nga bàyyee ko yàlla sa borom tabaraka wa taala man yàlla maa yor sa wërsëg saa boo paree ma jox la ko te mooy li wax ne laa tastaxil bi risqin is rabul wara mutakafilu risqa allazi yataallamu kon wërsëgu kii jàng yàlla moo ko yor waaye yow lii sa waru gar nga jàng kon xam-xam lu am solo la ci ci euh, jeunesse bi ñu war ñu bàyyi ci xel ndax bu ñu delloo ci euh, imaam Ahmad euh, Ahmad Shawqi ba wax na al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu waaye wal jahlu yahdimu bayta bayta baytal izzi wa sharafi maanaam xam-xam day fekk kër goo xam ne askan woo xam ne kenn xamu leen woon kenn reconnaître leen woon ci as ci société bi benn borom xam-xam feeñ fa ñu daal leen tàmbali leen bàyyi xel ah diw de moom. mooy wax mooy conférencier bi dem TFM waa ji lii de moom mooy waa ji dem Alwafa kee de moom mooy ki nga xam ne day daal di am tur donte waa kër waaye leen am nañ doom feeñ na fa daan tooñ da ngay dégg ñu naan dañ leen di ndax milliards yaa tax kenn dootu leen tooñ ñëpp dañ da wuti leen kon xam-xam noonu la ko sëñ bi jàngalee ne fort bi mu am ak puissance bi mu am ak spiritualité bi ci nekk dana tax maanaam ku ko am ci aw askan dañuy bàyyi askan woowu xel arab yi bu njëkk soo mosaana mën a way maanaam saw askan Mutanabbi am na fu mu koy waxee asmaa yi ah, fu mu koy waxee benn ah, maa ngi fàtte kii ba benn shaairo arab la mu naan ko man man Mutanabbi sama askan maa tax ñu xam leen defe naa waaw ah, maa ngi fàtte ko ko doon tonta di waaye ma ngi ko xam ne moo mu ne ko man maa tax ñu xam leen mu ne ko déedéet bu sa baay bu la juróon sànni la jox la xaj yi ñu lekk la kay kenn du la xam waaw loolu njuumte la kon nga xam ne kon waaye li mu ci bëgg a wax rek mooy saxal ne xam-xam fu mu feeñ jëmm la waaye barke la barke du jëmm waaye fu mu wàcc ñu xam ko fu mu wàcc ñu xam ko wax na ne al ilmu laa laa fa waaye wa nasabun laa yujfa xam-xam mooy taar boo xam ne kenn mënu koo muur ba du feeñ mooy askan woo xam ne kenn mënu koo nëbb moom xam-xam al aalim mufti ibnu ali al jazairi wax na ne man faaraqa al ilma xalla dulli saaxatahu walam yuazzam walam yukram walam yuhabi xam-xam daal mooy mbedd moo xam ne képp koo xam ne fàdd nga ko dem bàyyi ko fa dem solo weneen mbedd mbedd moom a nga solo da nga ko wéet ndax kenn du la fa fekk di la màggal kenn du la tatagal kenn du la faale kenn du la kenn du la lijjati kon ndekk kon mbedd yëpp bu ñu taxawee mbeddum xam-xam doon fa mel ne mbedd te fukki mbedd yëpp wurus sa jamaa fa nekk yow soobu mbeddum xam-xam lu mu yàgg-yàgg wiir wii bukki wiiri wiiri jaari ndar lay doon daga daje jéeg lépp moo tax sëñ bi daal ñu teel a xam moom sëñ Tuubaa ne wa taalamanna bi anna ilman wa amal huma wasilata saadata ajal na ngeen xam ne dëgg xam ak jëfe gi mooy ñaari jumtuwaay yi nga ne moo gën a ci dugal nit àjjana yéwénal àjjanaam waaye yéwénal àllaaxiram gi mu nekk tam kon Euh, loolu xëy na lenn la ci rek ci bunt boo xam ne euh, dama koy tëj foofu ci njariñ loolu nga xam ne sëñ bi wax na ko ci xam-xam waaye li mu jàngale itam bari na ma bëgg cee jukk ay euh, aslëf rek xel ndax mun ta xaj ci jataay bi waaye liñ li ci liñ jàpp ne mën na ci xaj ñu dóor ko ci bokk na ci njàngale Serigne Touba jàngal ndaw ñi mooy jamono ji mbokk yi xam ngeen jamono ji la ju doy waar mooy saaga xale yi saaga rek la ñuy def léegi jeunesse bi saaga rek lañ def muy métier saaga rek léegi dem nañ sax ba créer ci benn terme boo xam ne dañ koy wax bu ñu ko waxee ne nangam yow nangam yow dañ ko jëboole nangam yow jooju bu ñu ne nangam yow ja yow boo doonee sëñ bi sa sa sa nu sëb tukki waaw ma nangam yow ma nangam yow ma nangam yow nga xam ne terme la boo xam ne day def ba doon tabiyaay ci ñoom am don lay doon ci ñoom ko duñ ko sax yëg loolu mbokk yi war nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ne loolu te buñ koy def kat duñ ko def ci seen morom kese waaye seen morom yu bàyyi mën nañu wallahi asim ñi koy def mën nañu jotaay bi na nangam yow wax seen waxee kon nañ koy seen seen terme boobu parce que bu ko defee ñu tiit xam ne xàmmewuñu seen morom xàmmewuñu seen seen borom waaw fu fu ñu ko yëg rek dañ koy wax moo tax sëñ bi teel naa wax ne moo tax yonent bi wax ne bu leen saaga seen i wayjur ñu ne ko lan mooy saaga sa wayjur mu ne yasubbu rajulu aba rajulin fa yasubu abaahu wa yasubu ummahu du ca yem waaye day saaga baayam saaga ndeyam teg ca waaw bu leen di saaga seen wayjur ji ñu ne ko yonente bi nit nan lay saaga wayjuram mu ne mooy nga saaga wayjuru nit mu saaga sa wayjuru góor saaga sa wayjuru jigéen bu ko defee rek daal di am jàppante paaka yi loolu mooy war a nga gis Sénégal fii xale yi di jamantee paakaak rayanteeg léegi comme ay kuy napp ay ay kii maanaam doo xam sax léegi lu xew lu mu sëñ bi nag teel na ca wax moom sëñ Tuubaa wax ne Euh, loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, bokk na ci teggin yi nga xam ne sëñ bi bàyyiwu ko mooy yi ma waxoon léegi mooy xam-xam boo koy jàng sëñ Tuubaa am na xam-xam teggin yi mu laaj léegi euh, Sénégal léegi ba tey xale yi li ñuy baaxal mooy ayibal nit bala nga am la neex nga jël sa sa téléphone def benn live léegi saaga kilifa gu baax sànni nit wax lu bon yu mel noonu te xale yi ndaw a koy def waaye sëñ bi moom am na lu mu ci dafa wax ne waaye waaye sa bët bi bu tegoo ci ayibi nit sa bët boobu wax ko fa saasa ci sam xel nee ko waaye waaye bët toogal te dal ayibi jàmbur yi ngay xool kat xanaa xamoon ne man mii nekk man mii nga xam ne yow ci sa biir laa sax maa ngi fees dell ak ayib moo tax gàttum xel moo tax xam-xam am solo ki xam ñaare lool xam-xam bu sellal bi sëñ Tuubaa di jàngale yii doo ko ci gis mukk ci àdduna mën nay def ay waxtaan ay live mën nay kii waaye doo ko gis mukk mu déborde wax nit lu bon mbaa mu wax lu ñaaw wa in absarat aynaaka ayban aynaaka ayban faqul laha nee na na nga ko wax ne ko waxal ak moom ne ko falaa tubas falaa tab falaa tab tabsuri falaa tabsuri yaa aynu linnaasi ayunu waay waay dalal te xam ne ayib nit ñee ngay tudd man mii sax ci yow maa ngi ayib ju fees dell xanaa xooloo ko kon loolu liñ ci jàngewaat mooy nekk nit bu jàngoon ba xam boppam ndax ba alxuraan balil insaanu ala nafsi basira doomu li ko yàlla lu ko nit lu ko sàmba sàmba xam xam nga gën a xam sàmba sa bopp boo amoon gestu defaat boo sa bopp da gis ne am nga ayib yu fees ba tey sëñ bi am na lu mu ñu jàngal ci xeetu mag ñi ak ndaw ñi li ñuy seetlu léeg-léeg warmaal mag sëñ Tuubaa ne wa kullu man yakunu minka akbara min al aqaaribi fa kun muwaqara mbokk yi nga xam ne dañ laa jege di say dëkkandoo sëñ bi nee na nga leen di warmaal te bàyyi leen xel loolu mooy lan sëñ bi ne na ndax loraange mën naa bàyyi ko ñoom jëm ci yow léeg-léeg nga di koo xam ne danaan la ba ma man day ba benn pël fuuta wala moom laa dajaloon nga gis ndax loolu lépp day am am na nit ñoo xam ne daanaka dama yàlla ba seen adduna yàqu na ci nit ci la bàyyi ko te yooyu yëpp daa am te am na ñoo xam ne yàlla di leen cee may lool te am na foo xam ne boo fa jaaree ñoom ñu yàq sa adduna bañ ci dara moom na nga yàqu rek waaye lu ñu ci mën a góobu ñoom ëllëg ñu jéem koo gar wala sax muy bàkkaar boo xam ne ëllëg dala koy bàyyee mu mën laa dugal ci merum suñu borom euh, olof day faral di wax ne góob du téye góob maanaam déegub jànj boog laa bëgg a wax du téye góob waaye da ngay ñëw sa aqaarib yi mooy oto beneen xanaa su ma ko sañee wax lu ma ne Daaru Muxti gi nga xam ne bari na ay sareet Touba gee nga xam ne moom lu mu gàtt gàtt mañ sama bopp xam naa fa lu mat ñetti téeméer ñetti junni sareet Mbàkke Touba yeegi mel da gis mag mu toog ci sareet xale ñëw toogee ci kawam noo xam ne wala mu ñëw def ko loo xam ne daanaka du ko mën a wax dara te ñëpp dañu toog di seetaan kenn du intervenir naan ko li nga wax góor góor ko waxal nangam nangam ñëpp dañuy toog di seetaan oto nga jël mag boole ko xale mu ñëw ne ba ci kawam toog léeg-léeg cuisine bi sax mu xaw koo laal wala mu xaw laal faaram gi maanaam ba yëgee këram li muy njëkk mooy nan la war a def maanaam ba wut forate yi xew léegi maanaam jéem ko commencé ndax da koy gaañ te du mën a doon mën réaction ndax bu réactionné mu wax lu gën a lu gën dara kenn du ko faj moo tax ne euh, boo nekkee ku la mag bu ngeen toogatee ñu leen mag ci ñeen seen i jegeñ seen i seen i mu neen aqaare bi mooy euh, aqaare bi mooy ñi bokkal oto yi ñi bokkal sareet yi ñi jonjool ci marché yi tañ mag la defeet la bàyyi te mat la bàyyi maa ñu mat la ndey ak ak ak ak ak ay mag sëñ bi nee na leen bàyyi xel waaye romb mag ne ko dóor ko épaule moo nga naa ko waaye pa bi pa père nga père de xam nga yooyu sëñ bi yooyu yu war xalaat na ne bu ci tegee baat nga wax ko lu gën a lu gën a pire li ko def kon yooyu teggin sëñ bi jàngale na ko ci ndaw ñi bu baax a baax a baax euh, mooy li ma waxoon léegi loraa nga jooju man a jóge ci moom ñëw ci yow sëñ Tuubaa wax na ko wantahi an jumlati ma xat na hayaak anhu li rabbika fa yasdaada olaak da lay jox ak yëkkatiku war ga da lay jox ak yëkkatiku waaye jéem koo sañaxal wala jéem ko manqué war ma ma mag moomu sëñ bi nee na loolu mën na laa indil jafe-jafe ëllëg sa diggante sa sa diggante sa borom mbaa ci àdduna moo tax sëriñ Tuubaa ak njabootam noonu leen yare woon xoolal sëriñ Chouaïb radiyallahu anhu ci njaareem bi muy doon tuut tànk euh, ci sëriñ bi la ne woon euh, sëñ bi daan def bu daan toog mu yàgg ne ko euh, Chouaïb bu mu ne ko Mbàkke mu ne ko booy bu day jël benn ndox rek lu mën a kaas jox ko sëñ Chouaïb bi jël rek daal di bëgg daal di bëgg tëru mu daal di fil loxo bi téye ko ne ko Chouaïb wax bismillah sëñ Chouaïb ne bismillah mu ne ko waxatal mu daal di bisimilah léeg-léeg mu ne ko tëddal mu daal di tëdd daal di jékki-jékki ni gone def daal di mu ne ko jógal daal di loxo a laal mbagg mi bëgg a laal mu ne ko neel bisimilah mu daal di bisimilah mu daal bu jàpp loxo bi yëkkati ne toogal mu daal toog ne tekk mu ne ko wax alhamdulilah mu daal alhamdulilah waaw yooyu sëñ sëñ sëñ sëñ bi def na ko sëñ defal ba tàyyi ci tàggitin woo xam ne ba Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne 21 la feeñ jamono set la ko fi sëñ bi bàyyi nga xam ne juróom-ñaari at dong la dund ak sëñ bi sëñ bi daan toog daa toog ba benn bis moom sëñ bi mu daan ko na ngeen xam ne ay doomi soxna ngeen ay doomi soxna ngeen yéen li leen war mooy jàng ak dimbale xam-xam ak dimbale moo leen war moo tax sëñ mën sëñ Murtala bi mu nekkee sëñ Mouhamed Loum Diaw Dagana ay jamono fële ca Kayel googu yoroon fa otom boobee mu yoroon daa benn bi mu yàgg mu jékki-jékki mbokki mbàkki mbàkki di ko seet si mu jékki mu yàgg mu daan xëy xëy jaay jaay jaay oto bi daane man nag maa ngi xëy na su ma ko soññoon wax tey su doon sama sangar gi dama naan maa ngi bëgg a beew noonu la ko ko daal ne ah, man nag maa ngi bëgg maa ngi bëgg a jéggi nag dem ba yegg ci warub oto nag sëñ bi gars yi di naan si café gi ma noonu ca la jaayee oto ba daal di laxas mooy ak dem ak Mauritanie moom sëñ Muntaxa sëñ sëñ Murtala kon loolu ma nga doon bàyyi xel la ko sëñ Tuubaa wax na ko doome soxna ko yéen jàng ak dimbalee moo leen war kon sëñ bi ci yooyu laan yare muy yu am solo yoo xam ne euh, matoon nay bàyyi mat nay bàyyi xel waxtu ne jàngale na ko ci spirituel bi jàngale na ko ci éducation bi jàngale na ko ci physique bi sëñ Tuubaa dara wax yu ñaaw yi nga xam ne dañ koy gis ci ndaw ñi léeg-léeg sëñ bi nee na lisaanaka laa taskur bi awrata imrain fa innaka fa indaka awratun wa linaasi alsun waaye waaye yaa ngi ay bët di saaga bàyyi jàmbur yaa ngi wax ci internet bi di bind lu wax loolu la neex asgor su yàlla baaxal waaye waaye li wax ci moom même bu doon dëgg ayib la de même bu doon dëgg ayib ju ko piir mi ngi ci yow te tuddoo ko wala sa wayjur wa nga bàyyi yor na ayib ju ni tol te tuddoo ko waaye waaye tee nga bàyyi bàyyi jàmbur bi mbaa nday jàmbur bi mbaa ji nga yàq ci internet bi bi da koo jàngale mooy awru awrat maanaam lisaanu koy laa tasku di awrata imrain bu tudd benn awra yi mit mindeef ndax nit ku ne fa nga toog di tudd awray jàmbur nii la mel ak naa la mel yow li nga mel moo gën a yées moo moo gën a doy waar Euh, kon loolu loolu tam lu am solo la bokk na ci lu ma ne emprunté yi ak jakarta maan yeeg chauffeur si ñooñu faaw ñu jël seen wàllu xale yi léegi xale boo xam ne dañ koy teel a duñ ko jàngale moo tax may wax ne léeg-léeg lu leen suñ tuubaa gi nag suñ tuubaa suñ suñu tuubaa gi laa suñu tuubaa gi ma jàpp ne euh, université bi bu paree yaakaar naa ne xëy moo tax sëñ Mouhamed Badawi euh, ñu ngi koy ziar bu baax baax keroog bu ma gisee mu def waxtaan bi mu am solo lool man a waxtaan bi de war naa koo fekkee man ba bokk ci ñuy laaj ndax laaj bi moom sama laaj mooy ndaw ñi nga fees tuubaa daal te sareet rek sareet loolu daal yaakaar naa ne fi mu ne jot na ñu ñu ñu amati seetlu te génération boobu bu ñu bàyyee ñu jàll ëllëg danañ noddo ci jàkk duñ gis ku danañ gis imaam bu ne allahu akbar duñ gis kooku ne sami allahu liman hamida yàggul dara yàlla xam na loolu moo tax ndaw ñi il faut ñu recensé waat leen ñu waat leen tegaat leen ci yoon ba jàngal leen li ñu war a jàng te mooy njàngoo leen sëñ Tuubaa mu fi bàyyi woon waaye xale boo xam ne foo ko fekk mi ngi ci saretu mbaam te amul fukki at ak juróom te boo ci doon wàññi boo leen dugalee ci ci ci mbaar mi xajuñu fi jàkka ji li muy réy réy xajuñu fi loolu lu mat a siraat la te du Tuubaa rek dama cee jox misaal waaye bari na ci dëkk bi Sénégal kon euh, loolu laay foofu laay daanele samay kàddu Euh, euh, beneen bi mooy gis nañu xale yu bari yoo xam ne léeg lekk ci wàllu enseignement bi ni ko Sëñ Tuubaa jàngalee ay problème day am damaa gis benn école boo xam ne euh, élève bi professeur bi dafa war def jël absence jëlul absence xale bi xam ne jëluñu absence mu daw génn bi mu génnee dem ci benn toolu jàmbur dafa dagg ay darkase ànd ak ay boole xale yi jakarta maan yu ne woon ca koñ ba bi leen gaa di yoot ba jàpp leen jàpp ñaar ñi moom mu daw bàyyi fa saag ba léegi livre ba ca saag ba ci ñu identifié ni livre bi école sàngam moo ko jàngale ci dëkk sàngam ñu daal di gis bulus bi mu sol mu bàyyi fa encore bulletin euh, maanaam bulletin bulletin bulletin kiyam euh, kiyam maanaam bulletin bi nga xam ne moo ne mooy bulletin composition ñu daal ko identifié prof bi nga xam ne moo koy jàngal soxna si da koo xam daal ne am naa école boobu kii école bi muy jàng am naa fa professeur bu ma xam daal koy woo mu ne ko xale bi nga yow mi ngi nii xaaral ma jox la ko mu yokk téléphone mu ne teg ba mu pare mu daal di coupé mais soxna soosa ba mu ñëwee daa daal di porté plainte xale bi dañ ko mujj dàq dañ ko mujj dàq ndax dañoo waa ji soxna si ne day fay te ay waajur amuñu doole pour fay finalement ci ay jafe-jafe la mujj waaye loola la ci sëñ Tuubaa jàngale dana yow miy sàkku xam-xam na nga fexe ba wut yii ma lay wax école ba ngay jàng wutal àndandoo yi te moytu ña fa nekk ndax école yi léegi am na xale yoo xam ne dañuy tox ñu ngi ci école yi xale yi dañuy gens ñu ngi ci école yi ñu ngi ci école école sénégalaise xale yi lépp lañu def léegi li koy firndeel mooy élève boo ko jàngal ren déwén jàngaloo ko bu ngeen doon dajee ci couloir ab couloir bu ngeen ci dajee dalay door dalay door ëpp du la faale du la nuyu du la lijjanti kon te ñun cay jamono day bu ñu masaan di fut nekk ci mbedd mi di football ka yëngatu yu mel noonu ba gisuñu jàngalekat dañu daw danaan pëccët mbaa ñu daw làqat du gis kon dafa mel ne jamono ji jikko yaa ngi soppeeku moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne yaa ayyuha sibyaanu laa tujaalisu saxsan safiihan fa rasiidu jaalisu ku la sëñ bi wax yow mi jàng booy ànd na nga ànd ku jub ci biir ci biir daara ji waaye nag walaa tusaaxib xayra man yursiduka wa naa i kullu saaxibin yuhlikuka saaxibul yuxliku kaa mooy àndandoo boo xam daa ne ci biir école bi di tox di élève di tox wala mooy def étudiant di tox di ko nëbbu prof yi nga xam ko di ànd ak moom mbaa muy gens di ko nëbbu am na ci biir école sénégalais yi élève boobu dañ laa wax ne sëñ Tuubaa ne na nga ko wattandiku su fekkee yow bëgg ngaa rincir na nga ko wattandiku kon euh, foofu la ñuy daaneel kàddu yi di jégalu bu baax a baax mal ni ni ñu yéene woon a tënk ci tomb yi na lool waaye mu mel ne waxtu wi dab nañu dañu daanale suñu kàddu foofu di santaat waa Al bu baax a baax di ñaanaat ci yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mu yàggal seenu liggéey te dëgëral seeni cër bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen yàgg ko taxawee dema dem ba sëdi leen ci wutu bi jaay sayyidina sallallahu alayhi wa sallam ndax liggéey bi yaatu na te am na njariñ àdduna bépp ko jariñoo àdduna bépp koy jariñoo kon ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di santaan mbokk yi sëriñ Seexuna ak sëñ Xaadim ak sëñ Karaam yi ak mbokk yi yëpp ñu ngi leen siyaaraat di siyaaraat sëñ Cheikh Ibrahima mi ma àndal ak Cheikh Babacar Seck di nuyu fépp foofu ab jullit di dégge suñu kàddu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mame Mbaye Lo ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey jii nii eh, maa ne ci turu mu asasatul Wafa bi xuquuqil iman ñu ngi lay jagleel ay kàdduy yu yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu di ñaan yàlla tamit ni nga ko waxee ci biir waxtaan wi ci képp koo xamante ne yàlla dénk na la xam-xam nga tasaare ko bokk ko ak sa mbokki jullit la ci yàllay yi fay loolu yàlla ne ko yàlla làqal fi yàq yeggut waaye biir na tamit ne yow bokkoo ci ñi nga xamante ne yàlla jox na leen xam-xam ba noppi ñu nëbbu ko ni nga ko waxee ci biir waxtaan wi ni ko sëñ bi waxee ñu moy ci ñu moytu loolu. xam naa ne bala ñu ñëw ci laaj rek ndax am na ay laaj yu bari yoo xamante ne aju ci waxtaan wi dañuy jox kàddu gi euh, Serigne Ibrahima njaay su ko defee mu def ab taxaw seetlu. ci li nga xamante ne moom la seen doon waxtaane su ko defee ñu door ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo ci waxtaan wi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 bokk ak yéen jataay bu màgg bii di jataayu xam-xam nekk jataay boo xam ne ndam lu rëy la ci yoonu murit ndax li mu représenté ci ay boroomi xam-xam yu fiy jaar di feeñal seen xam-xam gannaaw ba ñu nuyoo ki nga xam ne mooy kilifaak maam Cerno Ibra Faati ziyaare mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñépp di rafetlu waxtaan wi nga xam ne suñu xarit Cheikh Babacar Lo sëriñ Mame Mbaye euh, indi na ko muy waxtaan woo xam ne kon ni ko wolof di waxe rekk la mooy li ci nag wi xajul ci cin li ndax leer na ma ne ni mu ko waajale woon ak yéene ji mu ci am bu sañoon mu gën a yaatu nii nga xam ne noonu la demee buñ ci def taxaw seetlu muy thème bi nga xam ne ci la doon waxtaanee muy shabaabul yawmi wa taalimu sheykhil xadim muy jeunesse bi muy jeunesse bi ñuy bi nga xam ne moo fi nekk muy jeunesse actuelle ak l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba wala Cheikhul Khadim muy njàngale sëriñ bi muy thème bu yaatu mu aborder ko waaye mu jël ci genn fànn ndax liñ mën a jànge ci njàngale sëriñ bi dafa yaatu lool ci yar bi ci liggéey bi tàggat bi moom mu jëm ci mu gën cee jëkkee aljaanib al ilmi muy côté xam-xam bi mu wax nan la sëriñ bi doon yare mag ñi waaye ci xam-xam waaye lu jiitu muy wax sëriñ bi ni yare jiital na sëriñ bi nan la doon jànge ak nan la doon sàkkoo xam-xam commencé ko ci ay waajuram ak ni mu joxe woon yitte xam-xam yitte jooju nga xam ne moom la joxoon xam-xam yitte jooju la bëggoon taalibe yi rawante na ndaw ñi jox ko xam-xam mu xam ne xam-xam lu jafe la deesu ko am tamit ci noflaay boo demee ci mbindam fi ko ci fekk muy wone ne inn al ilma aw al ilmu saabun laa yanaalu illa bi xifsin bi xabsi nafs mu ne lu jafe la loo xam ne lu doo ko am lu dul ci sonal sa bakkan coono bakkan rek moo la mën a may nga am nga am xam-xam wax na it ci sëñ bi muñ gi nga xam ne làmboo woon na ko bi muy sàkku xam-xam ci coono yi ak jafe-jafe yi loolu boo demee ci ndigg ndigle li nga xam ne moom la sëriñ bi digal wala ndénkaane li nga xam ne dégg na dénk na ko ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam muy kunkaati man loolu mooy lum mu la ba pare dool koo jàngal ndaw ñi pour ñu def noonu bu ñuy sàkku xam-xam kon loolu lépp buñ ko tënkee day won sëriñ bi référence la ci ndaw ñi sunu jamono ji ak démb ni nga xam noonu la nekke woon référence su mag ñi ñi jamonoonte woon ak ñoom ba ñu ca topp waaye ndawe tayit amuñu kenn ku ñuy teg ci seen kanam ci pas-pas akuk dogu ci wuti xam-xam ku gën a kawe sëriñ Tuubaa moo tax feeñ na ci waxtaanu sëriñ bi ni nga xam ne noonu la sëriñ bi doon xiirtale ndaw ñi ñu wuti xam-xam waaye li ñuy wax al ilmu naafi muy xam-xam bu am njëriñ ndax wax na ci biir waxam xeeti xam-xam yi waaye nag sëriñ bi moom xam-xam bi nga xam ne moom la jiitaloon mooy al ilmu naafi wal adabul mardi kon ci ñaar yooyu wane na ndaw ñi war nañ cee bay seen waar moo taxit sëriñ bi bokk na ci ñaanam yi nga xam ne moom la doon ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala te jàpp na suñ boroom may na ko ko muy ay jëmm yoo xam ne walla ay soppe yoo xam ne fépp fu ñu dem dañ fay yóbbu lu ñuy wax nibraasul ilm dañ fay yóbbu li ñuy wax njàngalenum yonent bi sallallahu te mooy njàngalenum Sëriñ Tuuba ñaan na ko wali qaada ahbaaban bihim uzhiru nuska kon loolu feeñ na ci waxtaanu Sëriñ Mambay bi mu ñëwee ci nja ci mujjantal gi wax na ci yàqute yàqute yi nga xam ne mu ngi ci jamono ji ak yi nga xam ne ay aafaat la muy ay gàkk-gàkk rawante na ci ndaw ñi muy ay jikko yu yàqu te loolu sëriñ bi indi woon na ci ay solution solution yi weesuwut nahju qadaa'ul xaaji bi nga xam ne moom la tëjee ay waxtaanam mu joxe ci ay ndénkaane yi nga xam ne nit ki nan nga war a mel sa digganteek sa bopp sa digganteek sa moroom waaye sa digganteeg ku la mag sa gë digganteeg sa sëriñ loolu lépp mooy téere boobu nga xam ne mooy nax ju xadaayul xaaji te seex Babacar Mambay tëje ko waxtaanam xam naa ne comme niñ ko waxee rek waxtu wi gàtt na te dañ cee bëgg a barkeeloo lool rek waaye waxtaan wi mën na gën a yaatu loolu xanaa di leen ñaanal suñ boroom yokk seen man-man ak seen kàttan di ko ñaanal suñ Babacar miit suñ borom yokk xam-xamam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 di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Mame ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant di rafetlu waxtaan wi waxtaan wi déglu nañ ko te li ciy seede mooy laaj yi waxtu weeku ku dul may waaye laaj yi bari na lool waaye waxtu wee xat dégg nañ ci sa biir waxtaan tomb bu am solo boo indi sëñ Moussa Ka indi ko bisu keroog ñu boole kook sàndarma bu tudd Ibra Binte Gueye ngir worma mu boole kook soxnaam sa tudd aana fay mu di ko toggal yàlla na yàlla xëy ko fay sëñ Moussa wax na ci lu bari mbokk mi dana wax ni yan yoon ak yan tegtal ngay jox ndaw ñi ngir ñu gën a fonk xam-xam jërëjëf euh, sëñ Kara euh, yoon yi de yi ma ciy joxe xëy na damay delluwaat ci njàngaleem sëñ bi rek euh, xam nga ni ko ma ko waxee woon ci njaal bi mooy xam-xam sëñ bi moom bi mu koy jàngalee ci ki ko war a am amin wu gën a gaaw amin wu gën a sell mooy jàng ko ci bi ngay doon ndaw sàkkoo ko ci jamonoy ndaw waaye boo bàyyee ba nekk mag ba mu paase nga bëgg koo jàng gis nga fi mu ne ñuy jàng sax néeg ba nekk mag soo koo jàng daanaka dañu làkk ne làkk bi rek lañ mën a wax da ngay gis koo xam ne jël ko ab professeur mu koy jàngal waaye làkk rek lay mën a wax làkk bi waaye du ñemee yi parce que li ko mooy xawaa xawaaxit yi mooy kene yi nga xam ne mooy tax ñu mën a dëgg dëgg am ndëslaayal xam-xam du ko peeg kon daal yoon bi gën a gaaw ci ndaw luy sàkku xam-xam mu sàkku ko ci jamono ndawam te boole ko yitte himma jooju sëñ Tuubaa waxoon loolu mooy may ndaw xam-xam bu gaaw te lool sell lool te mu cay jërëjëf sëñ Mbay ni ko boroom xam-xam ba waxee jàng ci ndaw mel na ni rëdd ci aw doj waaye jàng ci mag day mel ni rëdd ci kaw am ndox sëñ Moussa ko wax ni jàng ak julleeg jébbulu ak joxe alal mooy yoonu jannatu naimi yow defal jaaloog jëw ak jabar ak jëng cib atte bañ la atte kadee jàng mooy yoon wa jëm ca sawar ca sawar a jox yu ansana allahu min rajim mbokk mi day laaj yan yoon moo gën a gaaw ngir mën a jariñ ci mbindum sëriñ bi yoon yoon wi gën a gaaw ci mën a jëriñ ci mbindum sëriñ bi euh, bokk na ci mooy boo sàgg bu nit ki xëy na duñu wax sàggan sax waaye bu ko yàlla nattoo wala boobu yàlla nattul ba mu bokk ci ñu ma a jàng mbindum sëriñ bi ci teel ba mu rëcc ko la gën mooy li ma doon wax léegi mooy booy wax di nettali ngay diglu ñuy nettali diglu borom xam-xam yi waxtaan tey doon borom xam-xam yu seen xam-xam sell lool te wax te ndax nettali daa bari waaye source yi fi ñu koy jëlee nga fexe koo am foofu fa mu gën a baaxee. benn ngay diglu borom xam-xam ku mel ne mën naa ci tudd ku mel ne sëñ Abdourahman rahmatullahi alayhi mi fi bàyyikoon kooku boo diglu xam-xam ay kasetam nekkatu fi waaye mën ngaa bari xam-xam ku mel ne sëriñ Sam Mbaye nga xam nii lañ xam-xam su ko defee sàggan nga wala boog natt am nga nattu ba amoo sens jàng ci ndaw man ngaa topp ñooñu yooyu mooy yoon wi gën a gaaw jëriñ ci mbindum sëriñ bi mm, waaw wa man tadaaraka la si xatfaata ni ko sëriñ bi jàng mm. waaw ñu ngi lay bu mm. dañoo wax ne képp ko aw ndigal di màggal kilifa mm. doo tumuranke fenn mbaa nga kale fa te gor su nekk nag teral moromam ngir yàlla lay ame mbégum boromam ki day laaj ne ginnaaw ñi am xam-xam dañ leen a tere ñu nëbb seenu xam-xam léegi looy wax ñi xam ne ñoom jànguñu moo noppi te masala mu jóg rek ñu bëgg ca ifta te ñoom jànguñ jëf kooku day eh, li ma waxoon léegi xam nga ñoom am nañ toor ñoom moom wax waru leen waaye nag damay wax ne toujours penc mi ñi war a wax bu ñu waxut ñi wërta wax ñooy wax léegi nag foofu bàkkaar day am moom boroom xam-xam yi fiq yaa ngi fii xëy na ñoo moo koy gën a jekk waaye loolu bàkkaar lay doon ndax li war a am lislaam moom saa bu defee farata joo xam ne ñëpp dañ ko war a taxaw wala boog ñenn taxaw ñenn xaar lislaam wax xare badar bii sax xam ngeen ne tey la xare badar waxtu waa sax bañ koy def am na jamono yoo ne julli daa amoon doon julli ñii di xaar waaye bu ñëpp bàyyiwoon julli gi bàkkaar day am te xeex ba mënuñu ko bàyyi kon day mel ne kon ñi xam dañu war a génne xam-xam force la kooku du sax maslaa leneen bu ñu génnewul xam-xam ñi xamul ñooy wax wax lu toj penc mi su boobaa nag lu toj penc mi day delluwaat gàccuwaat ci ndoddum ña xam te waxuñu waaw waaye ñu ñi xamul di wax moom dañu war a noppi waaye ñee itam te xam te waxuñu dañoo war a wax waaw kon daal loolu laa koy mën a jàngee ci ci tënk boobu sëñ bi suñ Musaa Ka daa wax ne alim ju wax dëgg ñu faf jëngal ko jaahil ju wax ay fen ñu faf dëggal ko te buñ xëyee di soow këram lakkal ko ñam wu mu am ñu ni ko fuuf lekkal ko fas wu mu am walab sareet ñu war ko te bis bu santaanee liggéey ñu war ko boo demee ca njuuj njaaj da ko ci fekk insha allah ma ngi lay sant bu baax laaj yi bari na waaye waxtu yi moo mat sëkk sëkk sëkk eh, sëñ Mbayloo ñu ngi lay sant yaag ñi nga àndal ñëpp di ñaan yàlla mu guddal saw fan te saw yaram te bàyyal ak sa xam bu baax a baax Euh, di wax ni incha allahu taala bu subaa ak jàmm Serigne Omar Ba lañu fas yéene àndal mu di dinu wax defar dëkk yi ak dëkkuwaay yi defar dëkk yi ak dëkkuwaay yi sëñ Omar Ba lañu fas yéene àndal mu leeral ñu ko dëkk yi ak dëkkuwaay yi ni ñu leen di defare bu ginnaaw subaa Serigne si Mbacke Abdoul Khadir la ñu àndal sëriñ bi ak euh, ak ni ñu téye réew yi Serigne si ak ni ñu téye réew asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu